monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement je lay Le canal bi ça fait 20 ans dañuy jël eau usée eu jël ak avons euh, eu te ak koy eu te dara bëgg nañ am nañ ci yow nga nous nañ monsieur le ministre bi ci bi ma la woowee ci problème mu barke ji dama la woon ne ji forage bi dafa panne dañu am problème nga ne ma dama voyagé maa ngi Paris waaye dinaa ci taxaw le plus rapidement possible jot naa seen message nee nañ ñu ngi fa ñu ngi koy toppatoo kon nag loolu ñu ngi la ciy sant di la gërëm di la ñaanal yàlla loolu la ministre di jëriñ parce que askan bi lañ fi nekkat nit woo la nga wuyu ko di la féliciter aussi sa nomination du président Macky am ci yow ba la monsieur le ministre village fa nek dafa dañu yaatu bo xolé forage tout le temps muy am ay problème ndax nit ñi dañu yok bi ci des monsieur le ministre bu ñu amee deuxième forage ñu ngi lay ñaan tamit am na benn quartier bu tudd bokki boo fi deux en face lycée bi la ñoom tamit dañu am problème tuyau la ñu soxla parce que boobaax léegi dañuy dem di déplacer di rooti day xaw a metti ñuy ñaan ndax mën nañ am tuyau bu ñoom foofu directement. monsieur le ministre lycée Barké ji am na robinet yi mais ndox mi jàllul ndox mi du yéeg fan yëpp élèves dañu grève woon pendant deux jours ñu ñaan aussi foofu nga utul ñu fa saafara monsieur le ministre côté Ouest Foire dafa am problème assainissement day day ñëw di ñëwaat ñi ñaan est-ce que ONAS aussi du teel jël ay matuwaayam du teel def teel a def curage bi bala nawet bi yegg si beneen monsieur le ministre ñi lay bàyyiloo xel Yoff ndax appel bi léegi mu yegg ñu mën ñu taxaw ci canalisation bi ndax Yoff macha allah dafa màgg te tout le temps day recevoir ay pèlerins maa ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom lépp jàmm am Sénégal merci beaucoup présidente maa ngi lay ziar bu baax Aïda Sow jaar merci cher collègue. la prole anotó